jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ñu ngi leen di kontaane it bu baax a baax ci seen àndina ak le buzz du web la chaîne des leaders Senbuzz TV ñu ngi leen di kontaane bu baax baax ci àndin béeg wetiluku gi du ñu yug ci daa mbégte kontaante saa su ci daa àndoog yéen say jotaayu di leen toppal lépp luy actualité baaxoon bu aju ci ci li nga xam ne mooy showbiz ñu ko ci dalal moom délégué Amar dootuñu ko présenté ci réew mi mais aussi dootuñu ko présenté ci rédaction ak moom jotaay euh, xanaa monsieur euh, dama lay nuyu di la gërëm bu baax a baax si jotaay bi ak disponibilité bi nga ñu maayaat beneen yoon pour ñu am ak yow jotaay. jërëjëf sëñ Thiongaan ngi lay fay. di ci nuyoo bi at siyaar bi Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko te mu wér. Mm-hmm. ba naal yi mu am ci yoonu Seexul Xadim maamam ju màgg ju sell jooju mu matale ko at yéene ji mu am te ànd ko taalibe yi di ko ñaan ci këru tariixa diine yëpp di ñaan yàlla sunu borom sàmm leen te aar leen ba yéene jin am ci seen yoonu maam yi ñu matale ko di jaajëfal ñëpp di baalu àq ñëpp te di leen baal àq di santaat Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci bi mu ñu defalee tawféex ginnaaw sunu borom at yonent bi ñu dem màggali ci jàmm ñibbisi bisi ci jàmm tamatali bépp yéene jun amoon ci bisub Seexul Xadim bi ñoo ngi koy santaat bu baax moom Seexul Xaddim di santaat Serigne Touba di wax jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. très bien à travers di la ndokkeel bu baax ci bisu màggal bi nga xam ne ci la ñuy jógee ngay taalibe Serigne Saliou Mbacké. ndeysaan di la may occasion aussi wax dëgg yàlla ñu tatagal ndokkeel xalifa bi ñaanal ko aussi yàlla may ko fan wu gudd lool te mu ànd wér. amiin barke al xalifatul aam li tariqatul murida Seydi Serigne Mountakha Mbacké. ndeysaan amiin mm-hmm. ñu ngi koy ñaanal bu baax Mbacké Balla mm-hmm. bu nu sañoon moom dafa lool waaw moom na fi yàgg rek. Mm-hmm. mooy sunu njëriñ te mooy sunu tawféex bu bu bu bu bu bu aajowoo sax sunu borom jël ci fat fani murit yi benn fan bu ne. Mm-hmm. jox ko mun Muntaxa mu gudd fan moom moo ñu gënal. dal na ko yàlla def waaw ñu ngi koy ñaanal boobu yàgg fi lool. Mm-hmm. dal na ko ndax yàggam fi sunu sag la. am na njëriñ ci àdduna bi. am na njëriñ ci yoonu maamam ju màgg ji am na njëriñ ci yoonu muridisme am na njëriñ ci umma islamique bi yëpp. ndax nit ku baax la nit ku oyof la nit ku yaatu la nit ku yaatal la te foo ko fekk day ree rek mhm. waaw yàlla fi yàgg rek tëwér mhm. waaw mu yàgg ñoo jiite nag ay màggali yi màggal amiin waaw ñu ngi koy ñaan suñu borom li géwél yi di wax ren de màggal gi xanaa alaa daw me na ndax sa xarit bi nga xamee ni lu jiitu màggal gi yaa ngi doon ñaaw li ni wax dëgg yàlla gëj na Touba ren ñëw na bokk ak yow màggal gi muy waali si ñoo ngi koy ñaanal moom it mu yàgg fi tëwér son excellence président jàmmi réew mi mm. nit ku baax koo xam ne wax dëgg yàlla yitteem at mbébétam ci réew mi ñëpp gis nañ ko muy lan saa su nekk day bëgg askanu Sénégal di am cofeel ci moom cofeel googu askan wi di am ci moom du bëgg mukk di ko di ko essuyer lañ koy wax noonu. Mm-hmm. di ko ességuer wala dara ndax moom vraiment nit ku baax la koo xam ne dama koy bàyyee seexul xaddim waaye mënatuma wax ci moom dara lu dul la di ko bàyyee Sëñ Tuubaa rek. Mm-hmm. dama koy bàyyee Sëriñ Tuubaa bàyyee ko yonent bi bàyyee ko suñu borom ndax xam naa yéenim ci réew mi. xam naa mbébétam ci réew mi xam naa bëgg-bëggam ci askan wi. Mhm. donc loolu dama koy bàyyi sunu borom mu mattaleel ko ko. Mhm. nit ku baax la nit ku oyof la nit ku modeste la nit ku gëm boppam la nit ku diiñ la. nit ku gëm sëñ Tuubaa la taalibi tamit dëgg dëgg la mhm. ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax li ma xam ne moo di yéeneem ci liggéey bi mu nekk di ko def muy musique yàlla na ko ci yàlla suturaal yàlla na ko ci yàlla defal tawféex te yàlla na ko ci yàlla may ndam ay ndami ndami ndami ndam dafay indi disque d'or dafay indi disque platine dafay indi leneen at leneen li fi mag ñi daan def lu ko rawaal ko def ci musique réew mi incha allah ndax man du ma àndat kenn koo xam ne day nekk jël ndaare wala may da ngay am ndam saa su nekk ndax suñu borom moo ko def ci darmanko yi hmm. waaw am na solo màggal hmm. Tuubaa gi yemook mu tomb ak jamono joo xam ne mooy Abdoul Aziz Dabala polémique la woon wax dëgg yàlla donte ne ñu ngi woon ci feryetu màggal ñu fekk ko xaritam ñu rey leen ci anam bu ñaaw boo xam ne sénégalais yu bëree bëri boobaak léegi ñu ngi koy naawlu. waaw yàlla na ko yàlla ko yàlla yërëm man bi ma koy yëg booba maa ngi nekk ci waa ci màggal gi. Mhm. donc ci laa ko yëg mais yàlla ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana ndax rey moom kuñ ko def moom jàpp naa ne sa àjjana taxaw na waaw kon kooku bu fekkee ne duñ ko faat ñu ko faat tamit ah sunu boroom xam na. Mhm. ñoom xam nañ. ka kañu rey tamit xam na. damay faral di gis ne site internet yi gars yi ciy nekk di wax ak influence ñi tuddee seen bopp influenceur. surtout dafa mel ni ñoom ñooy justice yu réew mi te dafa mel ni ñoom ñooy enquêteur te li ñuy wax yëpp ay fen la gis nga dossier wax naa ko waxati ko enquêteur moo ca mën a xam dara. Mm-hmm. ak kañ téye di ko enquête. ak ay avocat am waaw mais su fekkee ne nga yow dañu da nga nekk ko enquêteur. demoo police wala demoo gendarmerie demoo tribunal xamoo la ñuy àtte lan la ngeen taal seen laay fi rek di ratatati rek tey nit dina ci wax ba dugal ci boppam. Hmm. mbirum dee ñu rey nit dégg naa ko naan euh, sëñ Bada def na benn discours boo xam ne. Hmm. une mauvaise mauvaise. <laughs> mauvaise discours discours. <laughs> parce que boo toogee ne ki ko rey xam nañ ko. ay ab artiste la moo yónnee nangam ak nangam loolu indi nga sa bopp problème. am na wax loolu c'est vrai. ah hmm. nga sa bopp problème. kon di communiquer ci loo xam ne wax ju bëri bu yàggee sax dangay soof. day mel ne ñoom ñooy enquêteur wala day mel ne ñoom ñooy gérédiste ay fen kese la ñuy lijjanti mooy hmm. lan yàkkamtee taal ay live hmm. nit ñi seetaan leen bu ngeen ni terewuñ kenn wax mais mën nga wax lu rafet mën nga wax loo xam ne da jàngal mën nga wax loo xam ne ku ko déglu da ciy jëlee njariñ waaye noonu kii moo ko rey ay artiste moo ko yónni di indil sa bopp problème boo xam ne bu problème boobu wàccee sa kaw doo xam foo koy wax ku ci maytuwul nag ci ñi nekk di wax di nga wax ba wax loo xam ne tey sa bopp nga ciy indil problème ndax la ca dossier ba ak enquêteurs yi ñan jàppat lañ wax loolu nit xamu ko. Mhm. ku dul enquêteurs yi nga xam ne ñoo yor dossier bi. enquêteur nag peut-être a nekk bëgg a génne information bëgg su dee mhm. genre yu mel genre rey yu mel nii bëgg a génne information wala nangam mhm. nangam. ñu génn wax ay bi. mënuma leen a déglu lu toll ne tarafatal xëy ni parce que mënuñu maa jàngal leçon bi mënuma cee jëlee leçon ci li ñuy wax. parce que ñoom la ñuy wax dëgg na dëggu la. mais malgré que amuñu crédibilité maanaam waruñu wax ci loolu sax ba mbir nit ñi di leen déglu. moom laa pourtant nit ñi dañ leen di déglu. parce que leen di déglu dañoo dañoo toog rek wéet amuñu luñ def ñu ne nañ taal fenkat yi déglu leen parce que mënuma comprendre yow mm-hmm. nit rey nit yow au li que nga concentré wu ci ki ñu rey ñaanal ko yàlla sunu borom ak njéggal ñaanal ko yàlla ak leneen leneen leneen mais da ngay naan lii lañ ko reyee jàpp nañ diw woolu nañ diw nangam nangam te ñooñu ñëpp li ñuy wax dara du ci dëgg. Mm-hmm. ku dul ñi nga xam ne ñooy dossier bi ñu ko yor muy waa DIC at ñi nga xam ne ñoom ñoom la ñu woo at yàlla sunu borom waaye léegi ñi nga xam ne nekkee wuñ fa. ñoom ña nga nekk ba am na ñoo xam ne sax am na koo xam ne sax yaakaar naa ma ngi ma ngi Dubaay. Mm-hmm. moom moo ci gën a euh, ñeme yàlla moom. comprendre nga. Mm. Mm. kon nañu bàyyi su problème amee sunu réew. d'accord nekkuñu sunu réew. di bëgg jël sunu justice sunu justice su réew bëgg a xam justice bi la muy dogal àll lam du dugal di ko def débat. c'est clair bañu ñu ko wax ko ku nekk mën ngaa sànni sa sa kàddu. man ngaa mm-hmm. wax sa kii ne nangam ak nangam lii ñoo ngi koy ñaawlu. Mm-hmm. ñi ko def nangam at nangam at nangam. Mm-hmm. waaye nañu nañu éviter yenn yi. waaw nañu bàyyi yooyu. ki faatu nag yàlla ko yàlla sàmm. amiin te jéggal ko fa mu nekk. ñu ngi koy ñaan suñu borom ak njéggal foofu mu nekk ndax euh, faatu moom ku ko xas ba def rek ak njéggal nga ko mën a ñaan mm-hmm. rawatina koo xam ne dañ ko faat rafet nañu ci njortu ne moom àjjana lay dem mm-hmm. comprendre nga kon faat moom am nañ ci moom yaakaar yàlla ko yàlla jégal daal ak ki mu ci àndal tamit muy waali muy waale ah mm-hmm. waaw maa ngi ciy dégg moom it ay parents ay nangaman nangaman nangam xam nga des fois parents yi dañuy def médecin appelé à dañuy sàggane seen tout tànk ba yëg benn jafe-jafe ñuy profité di génn di wax nañ koy éviter ku ci am sa tout tànk moo xam dalaa të at nangama nangam teel a la génn nga dénoncé ko. loo war a jël si responsable. voilà jël ko jël ko. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye bul bàyyi ba mu faatu ngay wax naan nangam at nangam at nangam budul dara seen njaboot la. te mm-hmm. seen doom la. am na as malaanu sur sutura goo xam ne war nañ ko ko mën a sàng. tout à fait ginnaaw suñu borom faat na ko. te faat bi du coobare doomu aadama lay moo koy moo koy moo moom moo koy kii waaye lépp suñu borom la. ndax man mii sax xaw ma ko mën nan laay faatoo suñu borom ni may faatoo bind na ko bu dee dañ may rey ci rey laay faatoo bu dee oto laay accident bu oto laay faatoo bu dee damay tëdd sama néeg dee ci loolu laa koy dee yàlla tudd na ko ba pare maa ngi ñaan nag bu ma koy def na nekk ma tëdd sama néeg julli ba pare lekk ba suur tëdd rek ne am na solo de la d' accord alors bi bi xew-xew bi amee ba léegi xel yi dafa dem ci cax bi nga xam ne moom la olof doon wax ni paaka bi lay rey sawaay moo koy daas jox ko sa noona d' après en tout cas li li enquête bi waneegum ñu bari ci ci Sénégal yi wax boobu lañ lañ bëgg a dëggal ni xëy na moo waral. comme naka ay noon moo ko rey. paak say nit. ay nitam a ko rey waaw. ay nitam lañ ay nitam waay ñeneen naan xaritoo wóoratul kenn ku ne daal en tout cas am na polémique yàlla rek xam. ndax la ñu jotee. Mm. man xawma ko. mais ñun jàpp gum ñu ko jege lañ. ñu ko jege lañ. Mm-hmm. waaw est-ce que tegu gum la nangu nañ ne ñoom ñoo. non nangooguñu ba léegi ay présumé lañ leen di tudd. waaw parce ne nag ñoom. kenn na taxaw mm-hmm. su boobaa ñu xam ne nag paak bi lay rey sa waaye koy daas jox na. jox sa noonu kon mënugoo d'accord ci ci loolu mënuguma d'accord parce que amaguma ma leer. <laughs> d'accord bu demee nag ba leer bañ xam ne ñooñu ñoo rey. Euh. ñoom avoué na nañ ne ñoom ñoo rey mm. su boobaa nag ku nekk jàngat ci mbir mi. d'accord te xam ne kenn kenn jërtu wóolu gis nga sa mhm. sama loxo bii sax jërul jërul mhm. parce que xamuloo tax. Mhm. nit ñi dañ lay rey rek mais bëgg nit te yàlla tax yombul de. ah bon congaan déedéet. barke Serigne Bamba bëgg nit te rek tax muy bëgg gu naturel bëggu topp maanaam bëggoo ko lenn lenn yàlla rek tax nga bëgg amatut yombul boo leen di compter ci da nga leen di compter sax bëreetunu donc xarit tamit yombatul. pour nga am xarit man congaan boo dee xool man du ma dem fenn man aw ma xarit sama kër laay toog jàpp sama ñàmbur du ma dem aw ma garant place aw ma fenn a ma xarit aw ma dugg sama kër nag daara la gars yi dañuy ñëw añ si hmm. toog waxtaan après mooy lool noonu mais nag maa ngi maa ngi digal ñi nga xam ne suñu borom da leen a suturaal dañuy hmm. dañuy ŋànna dañuy wut da leen jaral ñu wut ay armo hmm. si nit da ngay wut armo nga denc ko sa kër. xanaa jaarale ko ci yoon délégué. moom laa wax waxuma na nga dem rek jënd ah, arme boo xam ne da ngay légal fétal day legal dangay dem wut sa armo mhm. dem say defar say papier téye sa armo booy génn nga jël sa arme nga roof ko fii man noonu laay def man du ma taay de. man hmm. bu may dem boutique ba nii sax sama arme fii laa koy def parce que yàlla moo dogal ci suñu jëm yi ñu siiw ba pare te xamoo fu noonu di taxawee fee am benn haine bu mu la jàppal. bëgg ne délégué mi war naa koo faat xaar ma dem faat ko nangam ak nangam fekk yow jël nga say matuwaay man li may digal nit ñi mooy ku ci man a wuti arme na nga ko wuti mu légal nga jël ko di ko téye di ko ngànnaayoo fooy dem mhm. booy dem boutique ba baale ko foo man di jëm nga baale ko parce que on sait jamais wóorul dëkk bi foofu la toll léegi ginnaaw dëkk bi moom euh, doxal nañ loo xam ne nit du ñu àtte xaw ma lan lan lan lan lan lan waaw loolu du mënu fi am mhm. nañu fakaru nañu fagaru. Mhm. man de délégué ku ma sentir ne que ñëw pour faat ma wala ma sentir sama guddi nit di ma fëgg nii rek sama arme moom dama ko yaar neew. <laughs> waaw bu ñu déggee teel ne délégué nangam rek xam nañ ne kooku daan naroon na kii la rek. parce que foofu la réew mi toll di. ah waaye. foofu actualité mu aju ci ki nga xam ne ni muy euh, Sidi Diop di artiste bu mag boo xam ne moom it euh, jàppoon nañ ko wax dëgg c'est vrai que euh, coowu Aziz Dabala sax moo taxoon également ci anam boobu ku yem ni Sidi Diop di dawal oto boo xam ne assurance bi baaxul nga yor permis international boo xam ne aussi valable ban sentiment nga ci am wala ban jàng nga ci am. faux usage faux pour man Sidi Diop jomb na loolu te moo mag loolu parce que permis international bu fekkee bu baax la amul <laughs> Gambie amul Mali amul Sénégal. international la donc moom moo mag loolu beneen bi mooy. artiste rawatina nga nekk kilifa gars yi dañuy xeeb mais gis nga congaan fukki nit boo leen jiitee sax di seen di seen kilifa rek yow kilifa nga. Mhm. rawatina koo xam ne da ngay way di jàngale war nga di def loo xam ne tey ku ko déglu dala ciy naw wala war nga di def loo xam ne sax bu ne ah diw jàpp nañ ko ci lii duñ ni cam. Mhm. kon bu fekkee ne que nga nekk artiste war nga daw yi bëree bëri bëri bëri war nga maytandiku bu la kenn séentu ci gaalu xaj fekk la ci nga cay kon loolu bettoon na la bi ñu ko annoncé ci Sidi Diop non parce naa dégg Sidi Diop amul permis <laughs> déet waaye délégué non yàgg euh, na ma yàlla jégal mais jox naa ko fi sama oto ba taay te amul permis bi ma demee ba waxoon naa ko ne wutal permis permis lu yomb gis nga nit ni ngay farloo ci sa carte d'identité te xam ne boo ko amul doo am mën a am yenn privilège lañ hmm, koy wax privilège waaw yu bëri hmm. doo mën a am xaalis ci banque ba doo mën a am compte doo mën a def nangam a nangam ba pare passeport boo ko amul doo mën a dem tukki doo mën a def say nangam a nangam farlu ci permis bi nga xam ne sa réew nga nekk di dawal pourquoi gars yi farlu di duñ farlu ci permis dañuy farlu ci affaire de carte d'identité dañuy farlu ci passeport waxuma Sidi Diop kese de hmm. képp koo xam ne yaa ngi dawal te amoo permis laa la wax nañu farlu ci permis dañoo xeeb permis mais permis ñàkk ko dafa déli la de déli bu rëy la comprendre nga. Mm. kon ku mel ne moom buy buy buy bu mu bu mu bu mu ko dalati. mën na nekk nattu la boo xam ne yàlla moo ne woon sii di day jaar ci lii nangam mais bu mu ko dalati. Mm-hmm. na ci jàngat àdduna bu baax a baax a baax baax te mu góorgóorlu ci boppam te xam boppam. sëñ bi artiste da xam sa bopp. am personnalité te ba pare diiñ pérétu màggal gi nag moo taxoon laaj journaliste yi ñu bëri woon nañ ma pour mm. kii ma mais mm. mënuma ci wax ci affaire u Sidy nangam man nanga parce que nit bu nekkee ci natt du ma bëgg lu dul ñaanal la nga jóge foofu du bëgg lu dul ñaanal la nga génn fa nga nekk man noonu laay doxee mm. yéene wu ma kenn natt bu metti yéene ma kenn kaso ndax jaadu nga bu ma yéenee nii rek du ma jullit te du ma gor. d'accord waaw am taxawaay boo xam ne dégg naa ne am nga ko ci benn avocat bu siiw bu ñu wax maître Tallan mu bokk ci ñi nga xam ne ñooy layal nguur gi fi nekk sax bi yëf yi amee rek danga jël décision jéem a fexe moom it mu bokk ci ñiy layal Sidi lan moo la poussé ci loolu. waaw xam nga man bi ñuy jàpp Sidi di ma nga ma fekk ca daral nga may wutal waale nag yi ma yónni woon. Hmm. après ci laa ko gis ci média bi fekk nag diggante boobu nag yi ñu nekk ci yóbbu beet nangam ak nangam ak hmm. nangam. Hmm. par la suite. ci laañ ma woo ci troisième deux ba ca suba ka ñu ni ma defeere nañu ko bi ñu ko defeeree ñu ni dóor nañ ko mandat dépôt ñu wax ma ko ma woo yëkkati sama téléphone woo Maître taal ma ne ko Maître Tall mu ne ma ne ko ça va yaa ngi ci jàmm ma ne ko dossier sérieux bi yëngu ko mu ne ma yëg naa ne ko léegi lu ciy pexe mu ne ma loo bëgg ma ne ko nga taxawu ko nga taxawu ko loolu rek laa bëgg. ok mu ne ma ah ma ne ko waaw ma ne ko dinaa fexe jël sa numéro jox ko ki nga xam ne moom moo di. Hmm. Euh, nuñ koy waxatee Matar ngeen jokkoo léegi ci la loolu amee ma ne ko métti taal tegal ma ci ne ma non moom bu bu ma ko teeloon woo man amaana sax duñ ko duñ ko duñ ko dóor mandat de dépôt. d'accord dina dem moom ci boppam dina jëm jël dossier bi fexe ñu may ko liberté provisoire. Hmm. ma ne ko ah nat suñu borom moo dogal retard bi am waaw noonu la ko yàlla dogalee ci la demee nag moom métti taal jël dossier bi ci boppam bokk ko ay nawleem avocat am ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ay mbokk si di jóobale jël nangam naa nangam mais man dama woo mettital en tant que doomu jullit en tant que tamit nit koo xam ne sa mbokku moro sa moroomu nit nekk na ci jafe-jafe ba pare en tant que jël ko tamit samay responsabilité ci ndigalu Waly Seck hmm. waaw Waly moo la ko jëloo ci ndigalu Waly Seck donc kon ci laa ko wooyee waxtaan ceet moom mu ak mu nangu li ma wax. mu hmm. métti taal ndax sama nit la sama xarit la sama avocat la. nit ku ma xam mu am jafe-jafe moom laay woo bu ma ko mënee fay wala nit ne ma amoo avocat nangam moom laay woo te it ku ma gis nga bëgg avocat moom laay woo parce que moom moo ma doy. Mm. muy avocat boo xam ne mooy patron tous les avocats. Mm. moo maître Bamba Cissé di sama xarit maître Bamba Cissé ah di maître Bamba moom it di sama xarit di mm. maître bu bu bu baax. ñoom ñaar daal moom samay avocat préféré lañu maître Tall ak maître Bamba Cissé parce que xam lu tax maître Bamba Cissé Sëñ ma bëgg ko moom. ci ci ci ci ci ci moom dafa jël sëñ Touba ci ay jikko mooy lan ci yaatu ci mbaax ci ouvert ci oyof gi mu oyof ci liggéey bi mu nekk di def Maître Bamba Cissé boo fekkee ne sax danga nga da nga nekk tribunal jaaxle amoo avocat moom mën nañ ñëw at euh, ay nitam maanaam nu ñu koy waxatee sax. Mm-hmm. comme xaw ma agence lañ koy wax. Mm-hmm. jël ay ay employé boole laat ñoom ñu dem plaider leen te doo leen fay dara. kon loolu ci mbaax la bokk ak ci yaatu moom metre Bamba Cissé mais maître Tall même chose mhm. maître Tall bu fekkee naka dala bi nga ko ne ko ah nangam man nangam te man yoruma ak faqir laa mhm. maître Tall day jël engagement peleel leen sa doom te doo ko fay mu jaamu ci yàlla kon ñooñu ku leen am da nga leen di téye mhm. ku leen ku leen ku leen am da leen di fonk te di leen tiitaroo donc ñoo ngi jaajëf noonu daal la demee ci ndigalu son excellence président jàmmi réew ma woo maître Tall mettre ko en rapport ak euh, euh, nuñ koy wax Matar Diop Soubatel mm-hmm, mm-hmm. wax dëgg yàlla mu mu mu wéyale liggéey bi d'accord très tamit na gën a kii Sidi tamit na gën a fonk Matar parce que vraiment Matar jàpp na ci affaire yi te sonn na ci nit nit njariñ rek la sëñ Abdoulaye nee nit dee su ko lekk dañ koy jariñoo te bu nit ñi wut alal del wut nit yi ndax mm. ëllëg nit yi rek la mën a jël absolument donc loolu la daal la demee d'accord voilà yàlla def mu doon jàkkaarloog ni ki tey ñi nga xam ne mooy juge bi yàlla def na sax bàyyi nañ ko teew nga fa. Mhm. ñu bari ci ay célébrité teew nañ fa ñu bari ci showbiz bi artistes yu bari teew nañ fa. gisoo ni doon na rafet quand même Wally donte ni bi yëf yi amee génn na communiqué moom it mu teew fa ne serait-ce que pour wane benn. waaw Wally xam nga délégué mooy Wally Wally mooy délégué fu délégué yoon suba ba ngoon Wally fa taxaw. loolu doy na pour yow. waaw sëkk man jëmmi ba 17h Wally moo fa yendu 9h ba 17h man fu ma dem rek jàppal ne Wally moo ñëw. tey damaa dem en ñaari dem dem ngi mooy kóllëre goo xam ne sii Sidi am na ko sama diggante moom mooy mm. bi may takk soxna mm. déplacement bi mu def mm. ma demaat ngir jëmmi son excellence président jàmmi mi di Waly Seck kon dama faa teew ngir kóllëre ga mu am at man ci mariage bi mu ñëwoon ma demaat fa ngir jëmmi son excellence président jàmmi réew mi ndax man fu ma taxaw mel na la Waly moo fa taxaw parce que gis nañ fa tamit son excellence président Omar monsieur le ministre Omaro gis nañ ko fa moom it mais délégué fu jàppal ne délégué amoon fu mu taxaw Wally Seck moo fa taxaw. d'accord ndax du def lenn loo xam ne bu ko Wally déggee da koy xeeb man fu ma taxaw. Mhm. du ma fa def dara loo xam ne bu ko Faramareen déggee wala son excellence président Diamé réew mi dégg ko daf koy xeeb. Mhm. kon man fu ma taxaw rek jëmmi Wally Seck laa fa taxawee. muy bànneex. Mhm. di di di naqar. d'accord waaw ndax wax dëgg yàlla. Uh-huh. dem naa fa. neuf heures ci suba gis naa gars yi mu nekk loo xam ne lu loolu rek lañ lañ fi dese. loolu rek lañ mën a lante waaw loolu rek lañ mën a lante suñu biir. bu nit amee jafe-jafe na la gis bu amee bànneex na la gis. jafe-jafe sax mooy lépp mais ne xam nga sax garaawul mais jafe-jafe nit bu ko amee na la gis. am na solo kon man fa dem nga ma fa dem. d'accord jàppal ne waali moo demoon foofu. d'accord gis nañu ay. ndax man du ma def dara loo xam ne waali àndu ci. waali àndu ci mm. d'accord am na solo gis nañu ay yoo xam ni monsieur le ministre Omaro yëkkati na ko ni waali daanaka ba mu yëfee yëgee mbër yi li mu njëkk def mooy woo ki nga xam ne mooy procureur pour sàkku ci moom mu jéem si jàpp ak demee noonu ndax danga nga bëgg a wax ni ci loo xam ni xëy na xamuñu ko wala siiwul waali am na taxawaay boo xam ne amoon na lu ngeen ci xamul sax waali ci boppam ñëw na tribunal. waali ñëw na tribunal waaw mais kenn gis ko menn man rek maa gis. Hmm. waaw. waali treize heures la yeewu tey ñëw ba tribunal dugal otom ba ci kaaf ba xam nga mun otom bi mu yor mënoo koo xam. Hmm. xaw ma oto tumaani xaw ma oto kan la nekk. Hmm. ma ñëw fekk ko ci kaaf bi ñu laaj ma laaj ma expliqué ko lépp mu ne ma yàlla baax na rak bu wax kenn ñëwoon naa fi ma ne ko amul problème maa ngi sax sàcc di ko wax. ci kii bi ah de waruma ko def. d'accord moo man la man fu ma nekk waalee nga fa. c'est mënul ñëw tamit ci biir nit ñi nangam nangam mais lu ko métti la nag tey ku ko métti lu la métti lu na ko. Mhm. parce que waale xol bee rafet yërmande gi ci moom moo ëpp. comprendre nga. Mhm. waxuma la sax ay woo ay ay juge yooyu noonu mais métti lu na tax te te tey def na ci li nga xam ne wareefam la. amaana waali moo du def yenn yi di ko fësal ñun ñooy sàcc di fësal yi rek ndax xam ne eh, gis nga wax gi ma ko wax nii dani moom du ko wax kenn c'est clair mm, du ñàkk sax mu mere ma ci ah <laughs> d'accord ah? d'accord congaan moo soob rek waaye ah moom du ñàkk sax mu mere ma ci mais santuma ko euh. mais ñëw na loolu am na solo alors ñëw na foo ah. xam ne kenn gisu ko man at moom at yàlla waaw am na solo. bu loolu weesoo ñu bari ñu ngi xalaat ni vraiment artiste wala star bu mel ni Sidy Diop aussi wax dëgg yàlla yii nii détails yi waru ko woon a dund ñenn ñu ñu ngi déplorer ni est-ce que day wane ni problème entourage yooyu posé wu na ba yi war ko mën a dal. non Sidy du affaire bi du affaire de entourage na ma yàlla jéggi. jàppoo ne affaire staff la aussi. non non non affaire Sidy Diop du affaire de entourage du affaire de nangam personnel la affaire personnel la mooy affaire de permis affaire bi du doon affaire da waaye ma nangam man nangam sax mais affaire de permis la. Sidi Diop boo ko joxoon soxna nii fi mu toll nii fii ak gannaaw suba mën na soxna si ma ngi en état. Mm. <laughs> kon magum jëmm la ah. Mm. non na bàyyi xel rek. na gën a bàyyi xel affaire bi bàyyi xel la. d'accord xam ne yow da ngaa nekk quelqu'un ci réew mi donte mënoo way loolu yàlla def na ko mënoo way mais yàlla jox na la tur. délégué lu tax yow. Sidi Diop ak Sidi Diop du yàgg. non déglu ma rek donte mënul way mais yàlla jox na ko tur. tur bi ko yàlla jox xoolal naka defar ba ay noonam ak i sam sax di bëgg tey man bëgg naa délégué bu ñu koy jàpp ñu jàpp ko ci loo xam ne ak dëgg la bil xàq te ci lañ may jàpp chaque jour hmm. liñ may jàppee mooy défendre sama ay nit ci dëgg ku ko déglu du ni cam comprendre nga hmm. te it di buñ kii nañ ma jàpp ci loo xam ne tey dañ naan ah non lii de moom ndeysaan nat kii la bett nañu nanga ma nanga mais affaire de permis affaire de carte yooyu war na artistes yëpp na laa waxal nañu ko dépassé. d'accord dégg naa artistes yi fi dawal te amuñu permis bëri na de. Hmm. te kuñ ci jàpp barke borom Touba Mbacke di nga xam ne jub jubal jub jubal jubanti gii joxu ndoxu ñu ci jaaxal na ñu fonk seen réew. am na solo nañu fonk seen réew. am na solo tey artiste dafa war a am permis international boo xam ne international la war a doon boo demee réewu jàmburat fu mu mën di doon di nga mën a dawal. am déet boo xamee code de la route réew ma mm, mm, mm. kon nañu nañu nañu nañu nañu respecté suñu réew te fonk suñu réew tey sii di na lii bu ko bu ci génnee jàpp naa ne du ko dal na concentré wu ci ci xam naa commencé nekkoon na fa sax di bind ay turat yooyu commencé bind pour way détenu yeeg yooyu ah <laughs> ah xam naa commencé naa bind pour bu génne way détenu yi am na solo hmm? délégué waaw maa ngi doon am mbégte bu baax a baax si jotaa bi hmm. di la bàyyi nga yëkkati say dernier kàddu waaw sant nañ bu baax ah di ñaa yàlla suñu borom def jàmm ci réew mi si jongaan amin di leen borom sàmm leen amin yaa rabbi seen lii sunu borom def ko ci télé yi gën a mag ci réew mi yàlla mën na ko te yàlla ko yàlla def di ñaan yàlla suñu borom ginnaaw euh, ñi ci kaso yi te Sidi Diop bàyyi leen fa yàlla nañ génn nu mu gën a gaawee ah ñi ci hôpitaux yi tamit yàlla na leen suñu borom fëgg seen bopp euh, ginnaaw doon doonte ñëpp mënuñoo wér waaye yàlla yàlla fëgg bopp ñi nga xam ne ñoo ci gën a mettit le ñu jóg dem ñibbi waat seen kër ndax sunu borom mën na ko te yàlla na ko def. ñaan yàlla suñu borom jàmm. am na solo di wax murid yi kontaan nañ ci taxaw gi ñu taxaw ci màggal gi tey it fidèle at colle fidèle at fësal gi nu fësal seen bopp ci jëmale ko ci sëñ Tuubaa ñu ngi ñaan yàlla déwén dàq ren. amiin ba yéene ji ñu am ba nga xam ne matale nañ ko te bugg ko matale ci màggal gi. ñu ñu def ci incha allah suñu borom kàttan na leen am na nag koo xam ne ndeysaan mënuma ko bañ a bañ tudd sëñ congaan allez-y allez-y màggal gi mm-hmm. ñuy ay kii yu baax ñoo xam ne màggal gi. Mhm. jaaroon naa seen kër. Mhm. say wëllëre. samay wëllëre yooyu jëflanteeg teraanga ci màggal gi. papa Amar ah, di papa Amar ku baax wax dëgg yàlla. Mhm. Ah, di doomu soxna May. Ah, ñoom wax dëgg yàlla maa ngi leen di ndokkeel ci màggal gi. papa Amar ak soxna May Mbàkke ñii soxna yu baax ma jaar seen kër ñu defal ma teraanga ju mucc ay yaakaar naa am na benn xaftaan sax boo xam ne suñ papa jox na ma ko. macha allah ah, loolu am na solo loolu barkeelu boo xam ne chaque année bu ma demee këram daf ma koy jox. macha ngi ne ñaanal suñu borom sàmm leen te aar di nuyu Mouhamed seen mag ji nga xam ne moo nekk États-Unis mm-hmm.